Qui lu mu doon kii askan wi parce que ñom liñuy bañ débat biñu bañ mu posé wu débat boobu duñ ko fi mësa dindi moy wax waxet amna sénégalais xam nañ ko légui nak biñ ko démontrer ba paré woné ni su doon conseil constitutionnel décision conseil constitutionnel rek moo leen lié conseil constitutionnel lan la wax ci article 89 de la nouveau article 89 de la constitution yow né nga xam nga article 89 lu mu wax lan la wax jeex na conseil constitutionnel article 89 ni ngeen ko bindé baaxul. parce que su ngeen jëlee magistrat, yi juge conseil constitutionnel jëlee leen 5 yóbbu 7 am du mengo mode de renouvellement bi dem len bindat ko est-ce que bindaat nañ ko bindatuñu ko. conseil constitutionnel le régime des partis politiques mënu len ko dugal ci constitution jox ministre de l'intérieur pouvoir bobu parce que liberté d'association la c'est sous le contrôle du juge bindatuñu ko. Mmh yenen ak yenen mi ngi ci constitution bi mais. man ji bu bees yi wala bu yàgg bi. <laughs> su may wax kay yow xam nga li may wax léegi nga jël loolu yëpp. daal di woo askan wi. ñu ne 32 pour cent ci askan wi ñoo génn. nga am ci waaw boo xam ne musuñu koo am du ci taux de participation di ci wii euh, bi nu mu ko emporté nga génn ci loolu ñu gis ni ñoom defoon nañu ci affaire bi seen bakkan lañ ci tegoon. <laughs> gis nga liñ ci xëpp ci alal. yow noo mënee génn man gis naa ay ministre yoo xam ne fonctionnaire lañu ni man. Mm-hmm. xëpp ay milliards ci dem louer ay hôtel génne ay cortège yoo xam ne xaalis jeex yi nangam nangam mhm. malgré tout génne sénégalais non nañ ko ci internet rek malgré tout man mhm. sénégalais yi mhm. lu 32 pour cent ko a xam nga kan la ñoom ñii ñoo parce que xam nga même rek ma foofu man li le plein de voix moy benn ñi and ak ñom par conviction. Mhm. te wul ak ñi nga xamné ne motax ñu genn ñom def nañ fofu le plein de voix. d'accord nga am 65 d'abstention. nan victoire am na victoire d'accord merci alors président Doudou Wade. Ah. dégg naa li Sonko wax wax na jiñ na eh, ah, mais mais je je bi ñu voilà moom dafa né waxu politicien la mais defe naa ñun ñu conception politique. peut-être mom ni mi concevoir politique. Mhm. ñun concevoir wuñ ko euh l'histoire du mandat ne nous a jamais intéressé Macky Sall président Macky Sall mu def 7 ans voilà 5 ans man ça ne m'intéresse pas sauf sous l'angle maintenant du principe de l'engagement du leader taxaw ak askan kenn sexalu la lem Ken tegul fetal sa bop. Ngane ne ma fale ma mandat bi 7 ans def ko cinq ans Lolo engagement électoral référendum bi 2012 bi mou waxee loolu ak yenen engagement yu mu jël askan wi génn jox ko 65 ans askan wa def na référendum moom te jàpp naa ni kilifa kilifa gu toll foofu ne dama bëgg a yootu réew am na loo xam ne doo ko wax ba pare te càmbaroo ba xam ndax mën na nekk wala mënul nekk d'accord moo tax ñun waxu mandat bi dama ne su président Macky Sall bëggoon wàññi mandat soxlawul mu dem conseil constitutionnel te moom ci boppam wax na ko discours bi mu def le 16 février dafa ne si j'ai choisi la voie référendaire à la place de la voie parlementaire prévue par l'article 103 ça veut dire que xam na ni ñaar yëpp am na su ma tànnee c'est parce que dama bëgg askan wi prononcer mais xamone na ni bobu mën na né té defaat na déclaration bu ni mel temps yële donc ñun mandat bi dañu japp ni li lépp pour maquiller ben wax waxet la li tax ñu def précipitation gawantu andi référendum bi pour ñun dafa am ñaar dafa am mandat bi man su ma avec Macky Sall fait sept ans Yalla xam ni ça ne me fait ni chaud ni froid lu ci sensu engagement mu am nak nos institutions. Ah, mais mom waxna na la wat la gën naw ko wax. ndax job si dafa jàngul droit gis nga so jàngee droit di nga xam lenn. il il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de droits acquis du fait d'une élection gis nga mandat souveraineté. Mhm. dañu ne ça appartient au peuple.

moy ñun ñep japp nañ ni Sénégal amna problème institution. te mënuñu régime bu ñëw def référendum. constitution États-Unis depuis kagn la. mais lool lañ bëgg régler ñom non mais instabilité justement nag loolu la ñu wul parce que. si gis nga. constitution bi ko ci mandat et puis benen affaire bi ma bëgg a ñëw dinaa ci tontu. Euh, maître yum bi moy suñu deuxième débat ma dégg ko mu ne tel aspect gisuma ko critiquer je crois que warna tempérer ces ces ces ces assurances waxon na ko ci PSE bi ci débat bi ma da nga dul déglu émission yi wala da nga dul lire contribution yi. projet bi en tout cas xawma kan mais ñun def nañ ci ay production point par point wax li bon ci projet bi Ben, na la ci jox quelques mandarga yu gàtt gàtt gatt mhm. yu moom gëmloo di man projet bi du li lañ doon xaar su dee dañu bëgg réformer suñu institution dañu tudd légui CNRI. Mhm. xam nañ ni parmi les problèmes yi ñu am suñu institution bokku na ci la question de la de la magistrature. Seynery lan la proposé pour pour pour, ce point là. parce que duñ la jox nous on nga ci l'essentiel nous xam ni problème magistrature le cordon ombilical bi am le parquet et l'exécutif article 6 statut magistrat c'est suñu problème. mu am proposition yi def bi que xam présidence du conseil supérieur de la magistrature ñu ne proposé nañ né président rapide waru ko continuer nekk. ñettel bi question inamovibilité des magistrats ana benn buñu duggal ci ci projet bi amul. tamé ah, mënuñ ci def lépp. ñu ne ñu non xam nga Sonko mënuñ ci def lépp. Pape ngañ do tok ni yow bo né li nga bëgg ñu def ko ci kenen ni li la bëgg ñu def ko ci. mais ñaata point jëm non dañuy wax ci dañuy wax projet bo xamné mom dafa utiliser terme réforme consolidante. Hein? dama ne magistrature les points qui consolidés. mais mandat bi réforme bu am solo. gis nga non bàyyi ma ñëw non mënu projet bi da bon. wax ne. Mhm. critiquer wuñ ko may aspect yi ñu d'accord intrinsèquement waaw ce qu'on propose in extinction amul critique maintenant nak mën na am insuffisance yow mën nga né li doy amna critique bay ma ñëw ci sama critique non non mais il faut pas monopoliser le temps d'accord bay ko mu terminer force bay ma ñëw ci sama critique ñëw ci sa réforme bi tay réforme bi waaw on a on nous a ramené -hmm. le Sénat sous une autre forme ñun xamuñu assemblée nationale lu muy jëriñ fii lu dul ay xeex mom député la au conseil conseil conseil économique social. Mhm. le micro trottoir Ben sénégalais mënul wax lu muy jëriñ. Mhm. nga institution pour caser une clientèle politique. d'accord ak yeneen ak mën des aspects qui sont dangereux yu nekk jëlal article 86 dernier alinéa ma jox la ko. Mhm. ñu copier sur France. nous prévoir parce que nous avons renforcé l'Assemblée renforcer nationale. Nous avons un yi qui l'exécutif peut légiférer mun na la loi jaaleel ko ci engagement responsabilité. sous assemblée nationale déposé une motion de censure ci kii mu jàll d'office. nga yok ka yoyu té limité woko xam nga France biñ ñu ko jëlee. limité bon monsieur Sonko je vous en prie ci loi fiscale ak truc. voilà merci dina dina ci dama bëggoon génne xam nga ñom suñu naan nit ñi critiqué wuñ dafa yomb. nit ñi bind nañu critiqué nañu mais prochaine fois incha allah xam naa ni dinañ ko gëna yaatal ci. posé won par exemple ñi ngi wax ministre de l'intérieur ak taxaway bi mu taxawé ci élection yi mhm. te mun na tey xel ndax soo faree ba campagne def lépp ñu ni garder sa partialité loolu moom kenn mënu ko mais bokk na ci ci proposition yi nga président de la république président de parti te kenn waxatu ko ak yeneen yu mel mais man ñeent yi ma mën a bëgg noté yi nga am ci ah, mais est-ce que vous s'il vous plaît pour nous avancer s'il vous plaît. non question bi la. le ah. ministre de l'intérieur évacué parce que d'accord mais dama au-delà de ça waaw Wow. ne suñ koy évaluer ay waxu yu place d'accord su jël ñoom ñoo waroon inquiété mais dama bu ci ministre de l'intérieur wala président de la république ñi ngi convoqué scrutin bi en pleine révision des listes électorales am na lu mat 200000 sénégalais yoo xam voté. wote wuñu dem exprimer leur droit civique te yow une nga constitution ngay sàmm te constitution ne am nañu droit voter. Mhm. nga exclure exclu sur une base injuste te bi ma cour suprême bi ñu cour suprême ñun argument boobu dama ko génne génne jurisprudence cour suprême ci boppam bi nga xam aller la élection parce que eh, c'est vrai que élection euh, consulaire la woon mais dafa le fait que du faute de, la, de la faute de l'administration 2000 personnes mënuñoo wote c'est de nature à modifier les résultats ba annuler tenu tenu élection boobu premier quoi que le xam dans un pays boo un projet bu am solo mu moi, sénégalais nous xam ne prononcé parce que état bi dafa fayal ñaareel bi bi bëgg toujours ci quoi qui, mooy nous avons déposé woon courrier courrier ministre de l'intérieur mhm. xam nga ci projet constitution bu baax bi financement public des partis politiques loolu lu bees la parce que mon financement privé ba pare loi de 81 da ko prévoir mais musuñu koo appliquer ndax suñ ko appliqué woon parti yëpp dañuy n'y est parce que kenn mënu fait justifier ci n'y ñooñu fu alal gi di jóge ak fi ñu ko këpp rawatina nag ay nit yoo xam ne moom peut-être am entreprise may nit yoo xam ne entreprise bu ñu xam qui sa kii salaire nga am ni ñëpp ñetteel bi mooy yéen la presse pam ngañ la presse a été déterminante. parti pris pour flagrant. matraquage du jour au lendemain. mais l'ol non non je vous en prie le non yow xam wax. Mhm. je vous en prie monsieur Diop. et te dernier élément bi. man foofu laa foofu laa bëgg malgré loolu yëpp nag. dafa am loo xam ne day dellu ci population yi. d'accord suñu mayoon temps ñu développer nañ ko développer mais loolu mooy li nga xam ne voilà nous na ci li xew suñ ci suñ suñ ci boolee nak li jiitu won yépp ak comportement bi ñu am ñom ba ñu egsi fii d'accord man mënuma né ñom suñu xolé seen bop ci biir ci seen seen biir d'accord fuñu taxaw né victor Fofana ñom xam nañ am man japp na ni la presse notamment bu féké da nga bëgg wax euh, ci man ci TFM la xam TFM rédaction mo fi am ak service commercial ndax japp nga dara lo mëna jam ci rédaction wu TFM TFM ba jour élection non waxuma non dama ni non loolu lu jëm ci commercial bi ak production bi suma ñu nekk ci li ma mën a engagé mooy la rédaction ndax am na loo mën a jam ci rédaction ñu rédaction ak luy comité li ma xam bi à 7 heures du matin TFM mi ngi doon dawal ay